politique bi diggante nguur geeg ku jéggi daanaka yéenekaay yépp a ko xëyee ni ki tey ji mu di L'As quotidien L'Observateur Source A Sud Quotidien Rewmi Quotidien Direct News Tribune Quotidien ba ci sax Le Mandat Sud Quotidien dafa jàpp ne Macky Sall mu ngi tàllal loxo maire yi Le Quotidien jàpp ne lu mën a nekk la ak kàddu yi mu yëkkati ni ki démb jëmee ci kaw Barthélémy Diaz maire Ndakaaru nee na ko Bart yaa ngi doxal de danaa wax sa papa Jean Paul ne yaa ngi liggéey l'info gis ne Macky Sall ak li mu wax démb tàmbali na xaat waxtaan wi ak kii di Khalifa Sall démb ñoom ñaar jàppalante joxante loxo jàmm sante mel ni sax ñaar ñu namante woon waaye nag source aanee na ak lu ñu namante namante teewul Khalifa Ababacar Sall teg na ay condition ci taabal bi jëm ci dialogue bi bokk na ci li mu bëgg moom xalifa Sall terme de référence yi maanaam ci li waxtaan wi di lalu la tribune gis ne Macky Sall mu ngi waxtaan xaat ak nitu système bi waaye nag ci li xew démb diggante moom Macky Sall ak meeram Ndakaaru la tribune li mu ca bind moo di ne Barthélemy Diaz bugul benn yoon bukki ba màttoon Khalifa Sall ak kii di Karim Wade matt ko ndéem wolof nee na kundobin rey gisee lu ñuul doo fa taxaw direct info moom li mu bëgg a xam moo di gloria bi Macky Sall di wax boobaak léegi kan lay doon ci diggante Karim ak kii di Khalifa Sall yéenekaay bi sax fàttali ci bi Macky di wax ak Idrissa Seck naan ko ponche bi neex na waaye nag balaay gën a neex am gloria gloria boobu nag la direct news bëgg a xam kan lay doon ci diggante Khalifa Sall ak kii di euh, Karim ak li mën a am piis bi Macky piis bët démb kii di Barthélémy Diaz saf na sàpp ci yéenekaay ba direct news jege kii di Khalifa Sall ak Karim Wade réew mi quotidien yokkal ko ne ko li leer daal mooy Khalifa Sall tànk bi mu yëkkati gën na ko jegeel Macky bi ñu jege source a ak kàddu yi Pape Amadou Fall analyste politique yëkkati moom nee na ak lu mën a am opposition bi dana soppeeku ndax ñii dañoo bañ a dem waxtaane ji bokk na ci Ousmane Sonko Aminata Touré ba ci Déthié Fall ña des li gënoon yenu maanaa moo di woon ñu dem toog ak Macky Sall ne ko lii la ñu bëgg ngir waxtaan gi am moom Pape Amadou Fall ne Ousmane Sonko ak lënt yi mu amalante ak yoon ak a mu dem toog wax ak Macky Sall li muy xaar ci politique bi fii ci Sénégal ndax politicien ak mbooloom nu mu munti toll mënul tee jaloog am fii ci Sénégal dialogue boobu nag l'observateur yeewu tey di ko càmbar yéenekaay bi gis ne Macky Sall dafa toll ci diggante tànn personnalité indépendante maanaam koo xam ne farul fenn ak taxawal benn commission cellulaire démb ci bi muy jiite forum bi ñeel économie sociale ak solidaire ci la ko moom Macky Sall xamle yokk ci ne dialogue bi lu indispensable la maanaam lu mënuta ñàkk fii ci mim réew ci mim réew soxna di njàqare li ko waral AVC gi dëkkee daaneel tout tànk yi l'observateur moo ci defab gëstu téeméer ak fanweeri cas la ñu recensé ci hôpital Albert Royer ga ca Géejawaay yéenekaay bi indi ay témoignage ci coono yi soxna yi nga xamante ni seeni doom dañoo amee AVC lu métti la ñuy dund ci jamono ji beneen feebar ci beneen ab yéenekaay Le Soleil defab taxaw seetlu ci feebar bi di Crimée Congo sama naataango li mu gis moo di feebar bi mu ngi sous contrôle ci gàttal maîtriser nañu ko gannaaw ci ñàkk bakkanam ci weeru avril Sénégal ñi amoon contact ak ki ñàkk bakkanam ba ci sax cas suspect yi ñu ngi ñuy xool ci jamono ji bu ñu sukkandikoo ci yéenikaay bi di Soleil ñu tàbbi ci tàggat yaram ak yéenikaay bi di Stade Quotidien moom nag dafa defab taxaw seetlu ci nekkinu yenn lion yi ca Europe kàngam yu bari ci ñoom ci jamono ji dafa mel ni ñu ngi ci guddi gu setagul muy Edouard Mendy Nampalis Mendy Kalidou Koulibaly Sadio Mané Bouna Sarr ak Saliou Ciss mi nga xamante ni kenn gisatu ko record ne jeexul de ndaxte Pape Matar Sarr moom itam mu ngi ci ay tolof tolof ak clubam di Tottenham ñu amateur ak woy yu bees yi nga xamante ni moom la artistes yi jógtee ay woy la nga xamante ni daanaka lépp ay gaaruwaale la l'observateur jàpp ne ñu ngi tas néegu sëy yu bëri ci jamono ji loole nag am na lu ci kilee la maam Bamba wax mu ngi ci yéenikaay bi di l'observateur yéenook jàmm abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su yu wér